Mouhamed euh, Kébé euh, tey jii euh, nga nekk njiitu faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu lay laaj ci problème bu ki nga xamante ni mooy Ousmane Diédhiou Sadio Ousmane Diédhiou nga xamante ni moo occupé actuellement actualité bi ñuy wax ni dañ ko war a évacuer pour faji ko fële ca France est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci exactement problème mu Ousmane Sadio Ousmane Diédhiou quel la problème exactement lan mooy problème bi ci ay leeral. waaw SOD dafa am benn feebar bu tubaab di wax aplasie médullaire maanaam euh, yaramu doomu aadama dafa am ay cellules yoo xamante ni ñoom ñooy meññi voilà cellules yi sécré ci deret waaw cellules yooyu ñoo sécré ci deret yi ñu war a meññee foofu dañ ci ràññee globule blanc yoo xamante ni ñoom ñooy xeex ak feebar yi dugg yaramu doomu aadama xàmmee góor bi voilà dañuy jouer rôle bu transférable ci jël oxygène bi di ko yóbbu fépp foo xamante ni soxla dañ ko parce que di xàmmee aussi plaqué di euh, feebar boobu daal bu ko développé day waral di miir day waral di manqué dret loolu aussi di lépp lu ko song rek koy gaaw a tëral. waaw mu nekk feebar boo xamante ni nag. yeneen rek moom moo ko mën a faj ci ko mën a xaw a kii te sax li nga koy mën a jëriñ. am si durée boo xamante ni bu yàgg lay doon. ma ni aplasie médullaire euh, moom la suñu condisciple boobu am muy SOD. waaw yu médullaire dafa nekk feebar boo xamante ni li muy indi mooy pauvreté. waaw cellules yoo xamante ni ñoom ñooy meññi cellules yi nekk ci deretu doomu aadama. voilà te ci biir cellules yooyu dañ ci ràññee globule rouge ci ràññee plaquette bi ci ràññee globule blanc soo xoolee globule rouge day joué rôle bu am solo ci jël oxygène bi di ko yóbbu ci di ko tasaare si yaramu doomu aadama globule blanc aussi day joué rôle bu am solo lépp lu ñëw di song euh, doomu aadama bi moom mu taxaw jàmm jàmmal moom plaquettes aussi des joueurs du am solo ci nekk nu équilibre draine kon dañ seetlu ne ñett yooyu noonu boo ko nit ci manqué rek day waral di manque d'air comme ni ñu koy waxee ci wolof classiquement day waral aussi lépp lu ko song rek ci feebar euh, doomu jàngoro da koy mën a tëral voilà feebar boobu nag euh, fi ci toll ni waaw tey jii kon lan mooy euh, sentiment wu euh, famille wu Ousmane Sadio Ousmane Diédhiou lan mooy seen sentiment ci feebar bi nga xamante ni seen doom am na ko. waaw sentiment bi animé famille SOD yaakaar naa mooy bi nga xamante ni moo animé ëpp si Sénégalais yi. mooy sentiment wu soutien. mooy sentiment wu aussi gëm-gëm ak pas-pas. parce que boo amee nit ku mel nit koo xamante ni moom ci li li ëpp ci taam da doon dimbala ay nit di leen faj demoon sax bay faj ay nit di leen may garab te du leen laaj dara yaakaar naa ni bu ko lii dalee yow da ngay am yaakaar ne li doon def noonu yàlla dina jaarale ci nit ñi loo xamante ni ñoom ñëpp dinañ ñëw taxaw ko voilà foofu daal ci moment bi. beneen sentiment bi rek tey mooy xaw a peut-être xaw a mer mer ci yaaxus bi nga xamante ni dañ ko seetlu woon ci autorité surtout si début bi waaw bien que léegi gis nañ ne ñenn ñi ñu ngi yëngatu mais loolu yëpp nekkagul loo xamante ni lu effectif la waaw mais daal ci délai yi gën a gàtt ñun ñu ngi yaakaar ne ñoom comme ni ko sénégalais yëpp defee taxaw si kem kàttan ñoom dinañ ko def pour que ñu mën a trouver dénouement favorable ci dossier bi waaw léegi euh, lan moo war a tax ñu évacuer euh, ki nga xamante ni euh, mooy Sadio Ousmane jéeju koppar yee bari wala fii médecins yi nekk fii ñoo ko mënul faj lan moo waral ñu war ko mën a ñu war ko mën a en en France. waaw SOD dañ ko war a évacuer parce que. donc fi may wax yow nii greffe moelle osseuse kenn du ko def ci Sénégal te greffe moelle osseuse boobu moom mooy benn traitement rek bi nga xamante ma ni lu waral ñu koy évacuer mooy moom dafa war a def li nga xamante ni mooy greffe de moelle osseuse mu nekk lenn rek li nga xamante ni moo ko mën a faj. te lool amul Sénégal te greffe moelle kenn du ko def Sénégal. d'accord léegi koppar yi ñuy laaj nag famille am nañ ko wala amuñ ko. waaw koppar yi ñuy laaj di deux cent quatre vingt millions yaakaar naa ni euh, duñ laam-laamee naan famille am na ko wala amu ko famille amu ko parce que moom dafa nekk aussi sénégalais boo xam ne il vient de milieu comme li ëpp aussi sénégalais yi muy man wala muy keneen voilà moo tax aussi si cas bi ñu si xaar ndimbalu état comme ça daal moom mu jàpp si comme yeneen sénégalais yi nga xamante ni dara forcé wu leen ci liñ si jàppee. d'accord léegi deux cent quatre-vingts million euh, pour évacuer euh, Sadio Ousmane Diédhiou defal ko euh, boobu boobule ca France nga xamante ne mm. nee nga France rek lañ ko mën a defee amul fii Euh, ci Sénégal léegi condition ah, d'évacuation yi euh, mën nga ci ñëwaat exactement pour ñu mën ko yóbbu mu faju ji foofu foofulee ca France est-ce que am na ay garantie est-ce que deux cent quatre-vingts millions bu ñu ko fayee est-ce que am ngeen garantie ne euh, dinañ mën a sauver ki nga xamante ni mooy l'étudiant en médecine le médecin Sadio Ousmane Diédhiou waaw am nañ garantie ni bu ñu indee deux cent quatre-vingts parce que aussi aplasie du leer dafa nekk feebar boo xamante nii bu rare la c'est vrai que liñ koy fajee aussi cher na mais nekk na feebar boo xamante ni faj ko yomb na waaw maanaam bu ñu amee xaalis bi am hôpital boo xamante ni yàgg nañ koo def comme hôpital Saint-Louis bu Paris ñoom dinañ ko mën a faj te du am benn problème am ngeen si garantie que que que voilà. loolu laa wax ma ne am nañ ci eh, eh, garantie jéem ngeen approché xawma fondation servir le le le Sénégal parce que gis nañ Abdou Karim Gueye bi mu fi amee problème dafa taxawoon volontaire ne mën na ko jox xaalis mu dem faju ji est-ce que moom de sa part def na un effort par rapport ak kaawu euh, Sadio Ousmane Diédhiou waaw fondation Servir le Sénégal approché nañ leen ci yaakaar naa ni sax bokkoon nañ ci fondation yi njëkk approché mais taxawaay ñu ci taxawoon doyul woon waaw mais nag après relancé waat naa nañ leen voilà te yaakaar nañ mën na am ñu ñëw jàppale ñu comme daal liñ ko yaakaaree si ñoom. am ngeen mais ba fi may wax ak ñi moom amuñ ci taxawaay boo xamante ni ku boo xamante ku ñu mën a permettre la ñu am motif d'espoir ko évacuer. waaw ngeen de fonds collecte bi euh, yéen ko lancé étudiants yu fac médecine wala université Cheikh Anta Diop wala ñaar ñoo ko lancé ak tamit si yan condition ci képp koo xamante bëgg nga jàppale euh, kile di Sadio Ousmane Diédhiou. dem faju ji foofu foofulee ca France naka la war a def exactement. waaw collectif bi yaakaar naa ni ñun ñoo ko lancé woon. mais biñ ko lancé aussi dañoo gis ne Sénégal yëpp pour bokk confond dañoo ñëw ànd ak ñun parce que jàppale ñu te xaaruñ ci dara. waaw su may wax sénégalais yooyu dama koy commencé ci étudiants yi ñoo xamante ni ñoom ñëpp dañoo ñëw jàpp ci ñu leen ci sant di leen ci gërëm voilà di sant aussi yeneen sénégalais yëpp yoo xamante ni jàpp na am na ñu nekk ba Amérique am ñu nekk France voilà jox ñu seeni plateforme voilà di ñu jàppale di ñu defal ay collecte dafañ ne wala pour ba tey jii tax ñu récolter montant wu cinq plus de cinquante millions en tout cas voilà ci bilan bi ñu def tey waaw léegi euh, pour ñu bëgg a contribuer affiche bi yaakaar naa daw na ci réseaux sociaux am na benn code marchand boo xam ne suñu publication yëpp ñu ngi ko fay dugal voilà am ci aussi ay numéro yoo xamante ni ku ko envoyé moom dina si jot am aussi benn compte bancaire boo xamante ni ci turam la wala te lépp lu ko waaye envoyé incha allah moom dina si dina di ngeen ko def comme ça mu mën a euh, amal évacuation bi tey jii en tant que euh, étudiant ca faculté de médecine euh, bala yàgg dara vraiment yéenay médecin yi naka nga gisee li nga xamante ni moom mooy plateau médical bu défectueux bi nga xamante ni mi ngi fii ci Sénégal ba léegi deux mille vingt et un saa su ñu ngi dégg évacuation feebar yu baree bare docteurs yi nekk fii duñ ko mën a traiter parce que amuñ xam-xam bi wala sax duñu am jumtukaay jumtukaay yi nga xamante ni euh, moo ko war a def ban appel ngay lancer autorité yi par rapport ak euh, plateau médical bi. waaw plateau médical bi ñun suñu xalaat moo ci ne dañ ko war a améliorer bu baax a baax a baax parce Sénégal aussi comme pays ëpp ci Afrique euh, Afrique noire plus particulièrement dañoo suuxe trop ci wàllum faj. foofee faj nekk lu am solo loo xamante ni daanaka kenn mënul dem saa moom waaw léegi nag euh, évacuation yi moom souvent day bëri ndax am na faj yoo xamante ni duñ ko faj Sénégal parce ni nit ñi mënuñ ko faj wala amuñ lañ ko fajee mais législation aussi mën na tere ñu yenn traitement yi duñ ko def Sénégal loolu aussi dina ci am. te bon évacuation aussi mën naa wax ne mënul ñàkk ci réew parce que même Amérique sax dañuy évacuer France France yi évacuer Allemagne et cetera mais li am solo mooy ñun réew mi dañoo war a liggéey avec sérieux pour que ñun ñu mën a wàññi li ñuy njëggaani ci faj Europe parce que ñun li ñuy def mënuma ko tuddee sax évacuation sanitaire daanaka tourisme hospitalier la wala te loolu daal bokk na ci loo xamante ni day taal réew. te mën nañ ko xeex bu fekkee ni suñ plateau médical rehaussé nañ ko c'est vrai que am na ay jéego yu ci nit ñi di def mais li ci des dafa bëri def na lu bëri bëri yoo xamante ni war nañ ko améliorer et surtout condition aussi médecins yi nga xamante ni ñooy exercer ci hôpitaux yi muy pharmacien yi muy infirmier yi muy sage-femme yi aussi parce que ñooñu ñëpp aussi suñ nekkee ci ay conditions suñu plateau médical mën a rehaussé wu day tax population yi aussi mën a am ay soins de qualité parce que loolu mooy seen droit bi gën a élémentaire ñun loolu jàpp. kon tey jii euh, ban appel ngay lancé autorité étatique yi euh, surtout ci kaawu euh, Sadio Ousmane Diédhiou xam naa muy dernière question. waaw autorité yi appel bi ma la ñuy mooy rek ñu xool. ci population sénégalaise bi yaakaar naa ni ñoom bu ñu royee ci population sénégalaise bi rek problème bi dina résoudre parce que Sénégal dañoo seetlu ne ñëpp dañoo jóg taxaw def benn bopp ku nekk xoolee SOD comme sa bopp aussi ñoom ñu koy jàppale te xaaruñ ci dara voilà yaakaar naa loolu ci état leen ko waroon gën a xaar te ñu ngi ko ci ñaax aussi mu góorgóorlu ci voilà xar tànk euh, euh, xar tàntanam pour que voilà ci délai yi gën a gaaw de manière sérieuse bu jël en considération question bi pour que dossier bi man a am dénouement favorable. voilà Mouhamed Kébé Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. Euh, maa ngi la ñuy fay. voilà di di remercier aussi ñëpp ñoo xamante ni déglu nañu entretien bi. jërëjëf Mouhamed Kébé may fàttali moom mooy président bu faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop Dakar ñu doon waxtaanee euh, lépp lu soxal affaire euh, Sadio Ousmane euh, Diédhiou di leen remercier yéen tamit suñuy auditeurs yéen ñi ànd ak ñun saa su ne file ci Rewmi FM Dakar 97.5.